njàpp dee ak barsaq sànni ca déegu safara sa déegu safara soosu moo di ñaareelu dee képp ku ñu bindul sa tur ci téereb dund bi des na la sànni ca déegu safara si